Syntec di benn entreprise bu xarañ ci wàllu GPS dégguma di GPS dernière génération 2.0 IP 68 résistant à l'eau maanaam bu tooyee du def dara yamuñu fa GPS bi buñ la ko montalee fi nga toog dara du la ëpp ci sa oto wala sa moto ndax dangay xam fu mu nekk sa xel daldi daal bu leen neexee nga fay ko poursuivre ko en temps réel blocage à distance alerte accès vitesse alerte par message lépp ci sa téléphone tablette wala ordinateur donc looy xaar pour sécuriser say auto wala say moto ku ci soxla wooteel gaaw ci 77 881 34 84 adresse ñu ngi nekk fële ci Liberté 6 ak seen tech innovation seen jaaxle jeex na man moom ñoom rek lay topp. maaleykum mbokk diaspora bi asalaamaaleykum mbokk mbokk Sénégal. man Khadim Ndiaye maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur sant sëñ Muntaxa sant sama kilifa Pape du Fall production di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak as ndaw ndukumaan xam nga nuyu sama benn xarit moo njaay directeur ma nga ba diwaani Amérique ak Babacar sama xarit sama soppe di nuyu ñëpp di nuyu ñoom Kéba ñoom ñoom Kéba ñoom Kanji ñoom Henri ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. di wax ni tey dañu war a wax ci ay actualité yu xew euh, bi ma demee 2 bi ci Bijou Ngoné euh, Bijou Ngoné nga xam ne sama xarit dañoo bokk ñu te seddoo muy Wally Seck Faramaren bi xam nga man bul fàtte ne ancien gloire Faramaren am na muy man waaw di nuyu sama doom Wally Seck borom baatu or bi di nuyu sa yaay jaaga Alioune Badara Mouhamed moom i yàlla leen yàlla defal jàmm di wax ni ba ma fa demee la ma fa waxtaanee bi ma ko seetaanatee sama xol dafa sedd rek ndax xam ni Sénégal man dañu may bëggee àdduna dañ may bëggee xam nga di wax ni àdduna moom amul solo li fi am solo rek mooy wax lu baax def lu baax. Euh, di wax ni tey dañuy dugg ci benn sujet boo xamante ni ku ci mel ni tey muy Pawlish Pawlish man sama rakk nga sama doom nga dama lay jox conseil rek gis nga bàyyi ak nu mënti mel bàyyi la tey xool dama lay jox benn misaal rek ñi fi baax ñëpp. fu ñu waxee sant seen baay sant seen yaay ndax kenn mu leen fay ñoo leen indi ci adduna benn référence rek laa lay jox ku ci nekk am nga foo jaar sa papa bi nga nekkee ndaw mais bi nga màggee sa baay rek nga bëgg ah man mii même chose mais tey sama baay ay bu dellu si waatoon tey la ma defoon ci moom sax dama koy xeeb ba defaat double kon boobu Pawlish dañ lay jox conseil rek xoolal sa sa sa bi nga àndal Wally Seck xoolal ni mu def ak papaam ba papaam génn àdduna mu yóbbu ko yoof te ko te te te flambeau bi te bu rafet. xoolal ñu def ak yaayam nekk ci wetam nga xool barki démboo njaay ni ni yaayam def ci tabaski bi waali def génne xaalis yu bëri ay xar yu bëri jox doomu aadama yi xam nga man waali laa tuddee euh, santeuru néeru doole yi Pape Abdou Fall ma tudde ko promoteuru néeru doole yi ndax Pape Abdou Fall lay tëgg làmb na yëpp ñoo leen dugg kon waali yow yow yow yow Pawlish dellu si waatal sa ginnaaw dellu ci sa baay rek nga tuubal ko bu nekk fii di wax arrière passé amul sens ni ñi di la xamal sa baay doj la boo dalee ci kaw mu daanu nga daanu boo dalee ci kawam daanu wërsëg wërsëg ndey barke baay dellu ci sa baay xam nga maa ngi dégg sax tur yi sant yi sax da ko changé yooyu yëpp mënoon la ci bañ a fekk mënoo am lu ëpp sa boo doon changé di am mille sant it amul sens kon xala nga da nekk ci àdduna ñu ngi lay ñaanal sa ja sa mariage boobu nga def yàlla na la jig ak jàmm Wally Seck Matar Gueye Jamra dellu leen ngeen jël xale bi yéen xam ngeen li ci àq doom ak baayam jël leen xale bi ngeen dellu ko xam ngeen li ci yàlla wax jëleen leen Pawlish ngeen dem ko mu tuubali baayam xam nga paa bi ma gis naqariwul a tuubal même su fekkoon ni doon ko daam lu mu la def mënoo am dëgg ci moom ndax sa baay la sa baay dañ ne boo ko fekkoon muy naan sàngara sax l'islam may na la nga jënd ko jox ko mu naan xam nga kon nga xam ni baay ak waajur am na lu ci yàlla wax balaa nga am sa ngërëmal sëriñ balaa nga am ngërëmal kenn amal sa ngërëmal ñaari waajur comme ni ko sa rek sa frère defee Waly Seck Waly Seck de am na ngërëmal waajur xaadim Seck xaadim Ndiaye mi toog am na ngërëmal waajur waa caare gi yëpp mën nañ ma seede kon ak ñeneen Pape du Fall day am na ngërëmal waajur Pape du Fall am na ngërëmal waajur xam nga moo Ndiaye directeur am na war a ngërëmal wan naa la limal ay ay kilifa kon wa damay ñaan rek waali sama doom comme Pawlish jege na la yéen a ñoom biisu ngoone yow biisu ngóone comme yow lañ màggale ku jigéen ki yow am nga ci part de responsabilité yow lu baax rek ngay def xam naa la da nga yor sa puso di ñaw rek yow biisu waaw sikk nga nag xam naa ne sikk nga waaye nag wax dëgg yàlla danga nga yor sa puso di ñëw yow Bijou Ngoné waal yi maa ngi la koy ñaan ak Matar Gueye Jamra dem leen ngeen jëlee xale bi mu tuubali baayam xam nga sa baay bi ma gis ah naxaru la jubal te bu ëllëgee nga bañ a toog ci kii bi di wax ci say bii vie privée papa amul sens ndax maa ngi dégg papa Thion mosoon na la ci laaj wala ci papa Thion di laaj boobu man maa ngi ci buntu bi di xaar papa Thion pour mu génn boobu yow lay interview yow Pawlish xam nga li ma lay wax te lam la ci wax ba léegi tontu woo ko da nga da nga da nga wax ji kon àdduna amul solo dellu ci say waajur nga tuubal leen nga yóbbu sa jabar sa baay ñaanal leen soo bëggee sëy bi am barke jërëjëf